VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pipes et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 2 4 VIP people dal fa lay lepp di léré saraw nga ñu Macky Sall nob nga ñu Macky Sall nga ñu toroxal nga ñu million nga ñu ñun sénégalais sénégalais yi teketul dara ci monde international bi dara ñun ay référence lañu won légui dara makay dem ci bi ñun suñu ñom seen suñu Macky Sall billahi wallahi taalahi toroxal lañ waron dem tay demuñu tabaski bo ñu won

voilà mi ngi noonu donc gis ngeen jeunes yooyu nga xamante ne nii ñu génn euh, doon am habitude comme ni ñu koy defee di gunge Ousmane Sonko euh, ci bu waree wuy ji yoon euh, ci nombre de fois yi ñu ko woo ci tribunal yëpp daanaka ànd na ñoom donc ñu ngi gis aussi la gendarmerie ñu ngi ak ñun donc ils ont demandé voilà voilà. ak ñun donc la gendarmerie la ñu jàkkaar loolu voilà ils nous ont demandé en tout cas de quitter les lieux mais bëri na ñoo xamante ne nañu ni euh, waruñu leen euh, quitteloo fii nga xam ne fii la ñu nekk voilà. quitter les lieux nag le changement pas autorisé waaw d'accord le changement n'est pas autorisé ah. donc mu ngi noonu seen yaa ngi ko naan laqal olof dégg ñu ngay wax sama xel voilà mu ngi noonu ils ont demandé en tout cas aux gens de quitter la foule je rappelle ñu ngi nii fi nga xamante ne mooy ci VDN bi donc gendarmerie ñu ngi nii donc di di di chasser ñi nga xam ne eh, ñoom ñooy di la presse eh, wala boog sax ñooñu nga xam ne ñoom militants yi VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pipes et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 24. VIP People DAL, voilà les